internautes yu Dakar la ginnaaw bu ñu leen nuyu ñu ngi toog Dakar la ki nga xamante ni mooy Mayabé Mbaye di coordinateur national magu Pastef te nag ñu fekk ci euh, ki nga xamante mooy dëju euh, Pape Alé Niang bi nga xamante ni dafa ñàkk waajuram bu góor euh, ñu sori ci waxtaan bi ñu nuyu bàyyi nga wa salaatu wa salaamu ala rasulillah waaw ñu ngi nuyu mbokk internet yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla defal dafa leen xewal dafa leen sutura gu bare bare bare incha allah. lan xam nga tey dañu ñëw ma ànd ak euh, notre secrétaire administratif ak madame Aïda Ndiaye la vice coordinatrice ñu ñëw jaayal ji Pape Alé Niang mbir mi nag mën nañ ko teg ci ñetti fas la première mooy Pape Alé euh, jullit la ñun ñuy jullit booy juróom wàññeeku war nañu mën suñu amee jot ñëw bokk ak moom naqar bi. ñaareel bi Pape Alé nit koo xam ni dafa jël dundam sacrifié que pour le bien-être du peuple di waxal peuple bi di jooyal peuple bi bu amee naqar gu mel nii te ñun ñu wax ni te ñu représenté le peuple foog ñu ñëw taxawal ko bokk ak moom naqar bi incha allah dalalal xelam te jàppale ko ñettee bi nag mooy encore sur le plan yëngu-yëngu bu ñuy yëg sur le plan politique il nous comprend très bien ah ba euh, di ko wane partout nëbbuwu ci làquwu ci parce que pour moom dafa jàpp ni li wax dëgg la te fa ñu jëm gëm na ko donc par conséquent ñetteel boobu sax waroon na mën a tax ñu ñëw ñun tamit jaale ko bokk ak moom naqar bi. Euh, dañu dañu remarqué ni waa Pastef fi rek daanaka moment nekk ndax dafay wane ni ñuy di dafa bokk Pastef lan nga siy di ci leeral. non xam nga li ma jaaxal ci àdduna bi rek ci Sénégal bi moo ma jaaxal mooy Sénégal kuy wax dëgg comme Pape Alé Niang ku gis dëgg comme Pape Alé Niang di def dëgg pom Pape Alé Niang Pastef nga bokk alhamdulilah donc ñun waa Pastef ñoo fi nekk effectivement mais parce que ñun ku ñu yëg ñu yëg la te moom yëg nañu euh, adopté na suñu programme bëgg na ko mi ngi koy wax teg ku ci dëgg mais yàlla mi ma tiim à ma connaissance man ak responsabilité bi ma am ci biir parti yëpp xam naa ni Pape Alé Niang amul carte Pastef carte dëgg la yore léegi nag Sénégal comme ku am carte dëgg di wax dëgg di ko doxal ah di ko wane rek Pastef nga bokk alhamdulilah moo wane ne Pastef ci dëgg la nekk. Mm-hmm. Eh, bëgguñu sax wax mais foog ñu daal di koy daal ci borosoir ci occasion bi mooy Ousmane Sonko ay mbiram Clédor ñu ngi dégg ba léegi Ousmane mi ngi bokk ci course bi loolu lan lan nga waaw mais Ousmane Sonko ba léegi mi ngi il est éligible mm-hmm. ba léegi Ousmane Sonko éligible dara teewu ko d'ailleurs sur la dernière décision ñoom ñu ngi préparé benn rabat d'arrêt mais tout le monde sait que ni ñoom amuñu argument bu dindi Ousmane Sonko. parce que ñaari argument la ñu wax xam ne il est éligible mais le seul problème qu'il a mooy dañ ni dossier am dafa manqué quoi ensuite est ce que dossier Ousmane Sonko waroon nañ ko ubbi avant que mandataire di ñëw ah ñaareel ba ban problème moo am lu fa manqué ci dossier bi on a un cheque qui est déposé qui est débité ah un chèque qui est déposé qui est débité pour wane ne nous donner notre association c' est une faute de l' administration c' est pas notre faute deuxièmement sur les parrainages ils n'ont pas voulu nous donner les les les fiches de parrainage mais tout le monde sait que nous avons adopté le parrainage ce qui est intéressant c'est le contenu c'est pas le contenant donc ils n'ont qu'à ça Ousmane reste exigible et sera candidat incha allah. mais pas important ñoom bu ñu pare woon tey ñun pare on n'a pas besoin de beaucoup de temps validera incha allah su ko tegee ci yoon validera la candidature d'Ousmane Sonko. dans li wóor ba wóor mooy ñun ñooy gagné élection yi que ça soit avec euh, président Ousmane Sonko que ça soit avec Diomaye ou quelqu'un d'autre on gagnera ces élections yi. te nag dem sa làmb ji soq daan la wala benn supporter daan la dem mbër ma daan laa gën a rafet. nga dem sa làmb ji suq mbër mi daan la wala kenn ci supporter mbër yi daan la. bëre woon na mbër mu daal la moo ëpp moo ëpp daal. mais da nga gëm ne non déggoo li ma la wax bu la Ousmane Sonko joxoñoon ni nan la watal nga daan ko wallaahi problème bi processus bi c'est enclenché kenn mu ci def dara dellu doot mënut a dellu gannaaw c'est fini gëm yàlla rekk fi des nit booy xeex ak moom pendant deux deux deux ans et demi avec tous les moyens de l'état légaux et lu ne def ko mënuloo ko dara dara dara ba tey jii ba à dix jours de la proclamation de la liste de de kii mënoo ci moom dara da ngay gëm yàlla te bàyyi ko et puis lan la ñuy ragal ci candidat de Ousmane Sonko kan mooy Ousmane Sonko euh, le candidat des réseaux sociaux quelque koo xam ngeen baal ma waxee bi du wax dëgg quelque koo xam Sénégalais yi bàyyi nañ ko Sénégalais yi génn na ko ñamoon amoon as tuuti dugg nañ ci gaal yi dem loolu mooy seen wax ñoom mais gëmuñu ko su fekkee loolu mooy seen wax mooy actuellement Ousmane Sonko ne représente plus rien plus rien par conséquent ko bàyyi mu dem ñu ridiculiser ko dans les urnes dem yóbbu ko à zéro virgule cinq pour cent wala deux pour cent ils n'ont qu'à le faire est dans la liste des des candidats suñu ubbi bureau de vote à huit heures balay deux heures euh, wa fa di jeex ça c'est clair net et précis merci beaucoup Abdoulaye mbokk internet di Sans Limites TV ñu toog ak ki nga xamante ni moom mooy El Hadj Malick Ndiaye yor communication Pastef ñu fekk ko nag ci dëju ki nga xamante ni mooy Pape Alé Niang bi ñàkk waajuram góor balaa ñuy sori dañu lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet waaw jërëjëf ñoo ngi leen di nuyu di nuyu waa Sans Limites yëpp di nuyu mbooleem sénégalais yi ñuy topp mm-hmm. eh, nga ñuy wax ci waaw euh, naqar ak gis la ndax euh, Pape moom euh, ñëpp xam na ne Pape Alé wu Sénégal la bu weesoo mbokk gi yàlla dafa dogal mu nekk koo xamante ne ni léppam da ko jox Sénégal te yaakaar naa ne exemple la ndax koo xamante ne ni régime yi de traversé yëpp ku ci ñëw jàpp ne adversaire am nga loolu dafa am lu muy firndeel dafa firndeel ne yow ci askan wi nga féete benn parti nga am mooy askan wi waaye tamit dafa firndeel constance waaye firndeel tamit am courage am maanaam euh, gëm lu muy def ànd ceeg yaqin ak conviction ak fit ndax bakkanam mënoon na ko ci fekk mm-hmm. euh, gis ngeen ni mu demee grève de la fin yi gis ngeen li jot a xew yëpp ci jàpp yi ñu koy jàpp yu tegul fenn waaye terewul mu wéy gëm li mu gëm nekk ci wetu askan wi donc ku mel noonu boo amee xew muy xew naqar muy xew bànneex Euh, rafet na askan wi delloo ko ko ci cadre boobu lu ñu ñëwee. di ñaan yàlla way juróom bi fi bàyyeekoo di suñu way jur ndax yàlla fa dogal ñu bokk xaqan euh, suufu jolof woyof lool ci kawam. Euh, loolu daanañ ko ñaanal te sàmmal ko njabootam. ndax xam naa ne dina fier ci njabootam Pape Alé ak ay frère am ak sœuram mm-hmm. ba yàlla defal leen ñu. barkeel sut kow fan loolu nag. Mm-hmm. ñëpp xam nañu diggante mag ak Ousmane Sonko bokk na si ñi ko njëkk daanaka invité ci plateau bi mu yegee xibaar bi Ousmane Sonko naka la ko. waaw li ma ci firndeel sax mooy dama naan Pape Alé moo tax ma xam Ousmane Sonko ndax ci première invitation laa ko seetaan samedi mag ci laa xam. Mm-hmm. Euh, wax fa dëgg yàlla euh, ci laa déglu nit ki. Mm-hmm. Euh, li muy wax dugguma loolu nag ma commencé ci def ay gëstu. loolu li muy firndeel rek mooy c'est un grand journaliste xam nga au Sénégal. journalistes yi dañuy faral di xaar ba nit siw ñu koy xëccoo mais dans des pays comme États-Unis et autres dañuy préférer fekk koo xamante ne nii daanaka kenn xamu ko ñu interviewé ko et après ils auront le mérite de dire que diw man maa ko njëkk a comme Barack Obama entre autres loolu euh, mooy xëy na Pape Alé euh, mérite boobu la am c'est parce que nag euh, conviction lay demee gëm-gëm lay demee mais it fait aussi du journalisme pur et ndax yaakaar naa ne bokk na ci journaliste yi ñu gën a respecté ci réew mi euh, moo tax euh, xëy na loolu nekk cofeel bu ñu delloonte ñoom ñaar donte nag bu waxante dëgg jotee ñu waxante dëgg waaye am na solo lool te Ousmane du mës a fàttane ne Pape xëy na moo tax nit ñi xam ko ndax moo ko njëkk a accordé interview bi ko ñëpp bañee mm-hmm. donc loolu tamit day am solo mm-hmm. euh, coloré gu ñu delloonte la ci biir relation nag dañuy dem ba nekk ay xarit mm-hmm. waaye Pape Alé koo xam-xam ne noonu la nekkee xarit ak euh, d'autres leaders politiques yoo xam ne même ñu ngi ci pouvoir bi parce que c'est quelqu'un qui assume ses ses ses relations mm-hmm. quel que soit le bord. Mm-hmm. macha allah mais dañu gis tamit euh, Pastef daanaka gis nañ fi mag Pastef yi loolu kóllëre boobu ñuy faral di wax ni Pastef képp ku am jafe-jafe muy bànneex muy naqar dañ lay teewal. waaw ñun dañu jàpp ne bu dara weesoo bu lépp weesoo ñun suñu parti on ne s'appelle pas des camarades on ne s'appelle pas de je ne pas nu ñu koy waxee mais ñun on s'appelle des frères fraternité bi nekk ci suñu sigle parti mi patriote africain du Sénégal pour le travail l'éthique la fraternité lu ñuy lu ñuy dund la du loo xam ne dañ ko bind rek c'est pas un vain mot donc comme dañ koy dund dañu jàpp ne képp koo xamante ne nii yaa ngi ci parti bi wala nga nekk sympathisant wala nga nekk koo xamante ne rek ci Sénégal yaa ngi taxaw di xeex ngir dëgg ñun dañ lay boole ci suñu biir te patriote nag dañoo mën a sot comme ni ñu koy waxee. Eh, moo tax nga gis fii daanaka bale patriotique bi fi am maa ngi koy tooñ léegi Papa di ko ko wax. mu ne ma yéen dañu leen a dàq amatu leen siège moo tax ngeen bëgg a sama dëj bi siège parti nekk fii di waxtaan ma ne ko ah mu ngi noonu xanaa rek bale bi jeexagul ndax nit ñi dinañu en fonction de la disponibilité ñëpp dinañ ñëw euh, loolu nag dimension wu nit ki rek la nit ki moom li nga ji rek ngay góob. Euh, voilà duñu xalaat ni Pastef la bokk bu fekkee dëj bi waa Pastef rek ñoo fi nekk. waaw loolu day du problème ndax waa waa waa waa waa jam ay jamono waa PDS dañoo jàppoon ne ci Macky la bokk. ay jamono waa Kër Macky dañu jàppoon na ci xalifa la bokk buñ fi jàppee xalifa buñ demee ba jàpp na ci Sonko la bokk suba xam naa ne dinañ jàpp ne ci euh, El Malick la bokk wala keneen la bokk euh, àdduna mel noonu loolu nag li si solo mooy constance Pape Alé fu mu far mooy fi dëgg fu dëgg féete ak ku ñuy xeex ku ñuy teg lu dul yoon dañuy jàpp ne kooku moom mbokkam deret la sax noonu la mel day xeex injustice loolu kese la macha euh, nu ñu daanal te cof ñu tuuti mbiri Ousmane Sonko wàllu parrainage bi. damaa ñëw jaale si de. <laughs> Uh-huh. fa laay yem jërëjëf. <laughs> d' accord merci beaucoup. <laughs> waa asalaamaaleykum. muusu billaahi mina sheytaani man la soxna Aïda Ndiaye coordonnatrice nationale euh, Maggi Pastef chargée des femmes euh, vice coordonnatrice uh-huh. chargée des femmes noonu laa tudd. Mm-hmm. waaw dañu ñëw rek euh, bokk ak moom bés bi ndax euh, la perte de notre chair dafa lu luur di lu lu diis ah. loo xam ne lu metti la euh, ku ko dund rek yaa ko xam waaw man ñàkk naa sama waajur bu góor ñàkk bu jigéen xam lu waajur di représenté ci mm-hmm. doom moo tax bu ñu nekkee Pape Alé muy nit ku baax un bon sénégalais gëm Sénégal di ci sonn di ci liggéey ah bu ñu ko ko déggalee dañuy jóg loolu mooy sunu tànk nag ñëw bokk ak moom tiis bi bokk ak moom bés bi. mais dañ fa gis El Hadj Malick Ndiaye nga si tooñ yooyu est-ce que ni dafa bokk si yéen wala. non Pape euh, Pape bokkul si ñun sur le plan militant bu dee militant tax ngay wax moom du militant amul carte Pastef euh, Pape Ali dëgg rek la ànd ak ñun. te Sénégal la tax muy muy muy dox Sénégal la tax muy wax gis nga balaa ngeen doon xam Pape Alé ñun tey ñu jëloon pouvoir bi ba nekk ci loo xam ne contraire nag ak les réalité yi nga xam ne moom la Sénégalais yi di xaar du ngeen ko xàmmee Pape Alé dëgg rek la am àndal te loolu la ñu xam ci moom te loolu la ñu ànd ak moom waaw. di daani sama waay la jàmm ña jaara busut wala man sa